Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may de presse jàngeen jëf ndamal Pastef ci élection législative yi ci la yéenekaay yépp xëy tey réew mi quotidien di wax ci opposition bi nga xamante ne dañ leen a toroxal ci département yu ëpp ci Sénégal gis ni ñoom daal boo mayul kawo la ñuy dund ci élection législative yi ndax tendance yu njëkk wane na ni Pastef ci boppam moom mooy jël raw gàddu gi li koy firnde sax bokk na ci yéenekaay groupe Rewmi Network bi gis muy Amadou Ba Barthélémy Diaz Anta Babacar Ngom ba ci sax Bougane Gueye Dany ñoom ñëpp daanaka ci seen bureau de vote dañ leen a làbbali li moo tax ci biir yéenekaay bi mu mel ni ñoom opposition bi yépp daal nañuy ànd félicité kii di Ousmane Sonko li Sonko def ci législative yi Libération tamit gis ci ni ab coup kaw la bi nga xamante ne def nañ ko opposition bi ndax liste bi nga xamante ne Ousmane Sonko ci boppam moo ko jiite war naa am majorité écrasante yéenekaay bi yokk ci ni donte amoon na li ñu doon jiixi jaaxa ci taux de participation bi mujj 49 pour cent mu mel ni raw na bu baax li nga xamante ne moo amoon 2022 moo ne de la tribune dafa gis ni ñu bëri ci électorat bi daal dañoo gedd élection yi ndax li ñu taay ci politique yi donte jox nañu nag Sonko li nga xamante ne moom mooy assemblée nationale yor-yor bi ne ko Sonko kay di jox dañu ko plébiscité ndax askan wi ci seen wàllu boppa jox nañu lépp li nga xamante ne moom mooy doole kii di Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye fay ngir ñu mën a doxal Sénégal Sénégal mooy Sonko noone la ko le bokk na ci li nga xamante ne moom la wane ci élection législative yi ba jox pastef li nga xamante ne moom mooy majorité bu wër moo tax njiital pastef jamono ji nag am na lépp luy pouvoir waaye yéen kay ma jàmbal jaan bi dañu xamal ni Macky Sall ma ngay langaamu ba tey ci titre foncier bi nekkee ci bët gànnaaru réew mi jamono jooje Barthélemy Diaz moom ñàkk xeex bi ci ndakaaru amadu Ba moom mënul sax dëggal li nga xamante ne moom la amoon ci présidentielle bi te booy xool sax intercoalition bi opposition bi def daanaka existé wul benn yoon razia nga xamante ne Pastef def na ko ci législative yi les li mu gis tamit mooy askan wi ci seen wàllu bopp ñoom ñoo jël lépp daal di koy jébbal Ousmane Sonko Ndakaaru Sikicoor Kolda Thiès Ndar Géej daanaka ville yu mag yëpp Pastef moo ko bokk Matam nag ak lu néew ci ay département ñoom ñoo xaw a résister Pastef nag war a am majorité bu wër ci assemblée nationale li moo tax yéenekaay bi ne ñu Amadou Ba Thierno Bocoum Barthélémy Diaz Abdoulaye Sylla ñépp sukk jébbalu opposition bi félicité Ousmane enquête ndax yéenekaay bi mu ngi ñuy xamal ni Pastef ci boppam razzia la def ci élection législative yi ni ki démb lii nag du gulat ndax suñu naataango yi ñu ngi ñuy fàttali lu ko dalee Abdoulaye Wade ba si Bassirou Diomaye Faye askan wi mu musuñoo soppi benn yoon li nga xamante ne moom mooy seen tànneef te askan wi tànnaat démb Walf Quotidien nee na mooy Ousmane Sonko ndaxte lépp la daa di ngar daajo Sud Quotidien ne ko Pastef kay démb li mu def mooy raatale ndax bayul dara opposition bi yéenekaay yokk ci ndakaaru waaye Macky Sall moom titre foncier bi nekk ca Matam daf ko bokk ba tey taux de participation bi ñu gis ci élection yi nag raw na atum looloo tax ci biir yéenekaay groupe Sud Communication bi Sénat di rafetlu bu baax a baax taxawaayu askan wi nga xamante ne wote nañu ci jàmm li askan wi def nag ni ki démb l'observateur gis ni jàngat bu rëy lañ ci mën a def bu weesoo sax li nga xamante ne moom mooy chiffres ak nombre de sièges yi nga xamante ne Pastef dina ko gagné Pastef ak njiit la li nga xamante ne def nañ ko gis ni daal ab razzia la bi nga xamante ne kii ko def du kenn ku dul pro Ousmane Sonko ci boppam suñu naataangooy gis ni ab exception la ci géewu politique gi ci Sénégal yéenekaay bi mel ni kuy rafetlu tamit grandeur ak fair play bi nga xamante ne opposition bi wane nañ ko gannaaw résultat yi nga xamante ne dëngal na ndamu Ousmane Sonko Ousmane Sonko vox populi maître du jeu politique la ko duppee ndax li mu wane démb ndax li mu wane démb weesu na sax doole waaye bu amul fenn moom la njiital Pastef yéenekaay bi di xam ne ni kon parti au pouvoir bi mën naa am gën cee néew lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ni ay député mu war a nekk kon majorité bu amul fenn moo tax Le Soleil yéenekaay gis ni Pastef démb jaay doole la doon def ci mbañ gàcce yi ndax grande ville yépp fu ci mel ni Dakar pikin Touba Mbacké Ndar Géej Kaolack ak a lépp la daa di ngardaajo maatam rek moom mooy ki jot a ci li nga xamante ne moom mooy xeex bi yéenekaayu an bi duñu xamal ni Kaffrine ak Podor moom xëccoo diggante takku wàllu ak waa Pastef te wat bi démb nag daanaka amul dara lu ñu ci laam-laamee lu ñuy laam-laamee tamit ci ndamu Ousmane Sonko amul ndax l'info nee na démb moom njiital Pastef dafa écrasé adversaire am yéenekaay bi ne lu ñu doon yaakaar ci yeneen ville fu ci mel ni Ndakaaru ak Ndar Géej daanaka match sax mujj fa am match bi amoon ci Ndakaaru diggante Abass Fall ak Barthélémy Diaz wana na ni ki nga xamante ne moom mooy tête de liste départementale bu Pastef moom mooy patron Ndakaaru bu bees ci kanamu doomu Jean Paul Dias bi ci kanamu yoon la ñu war a yóbbu nervi yi nga xamante ne ñoom ñoo fi laale woon ci li xewoon diggante mars 2021 ak février 2024 libération mi addu ci coowal Jérôme Bandiaki ma ngay xam ne ni kon doyen des juges jamono ji ma ngay yootu bu baax yooyu leen nervi ñu jàppoon ni ñoo doon lëkkaloo ak moom Bandiaki mi ñu teg loxo ay fetal jaas yi ak leneen moom la ay témoin daa di nettali enquêteurs yi bàcc ba ñu gën ko xam ci mbës nekk ci écurie Boy Niang ko déglu yéenekaay bi yokk ci ni Dof Ndeye tamit ba moyul yoon dina ko teg loxo du yàgg dara Boulaye Dia yàgg lool ci infirmerie équipe nationale bu Sénégal Rewmi Sport mu ñuy xamal ni moom attaquant sunu gaynde yi mujj nañ ko libéré ba dellu na clubam bi di Lazio ndax wopp bi nga xamante ne moom la amee ba tax du mën a bokk ci jongante Sénégal bi ñu war a amal ëllëg seen diggante ak Burundi ci jongante Sénégal Burundi goge record jàpp ni Pape Thiaw war naa a soppar ñi